ndeysaan Franc mbër bëreegul guddi guddi Parcelles Assainies loolu ci kanam lañ koy xam ndeysaan Kalidou bàyyi baat bi di sifflé garaaw no bàyyi baat bi di sifflé ndeysaan Kalidou su ma gisul dinaa la ko wax borom seen làmb yow loo def gën loo deful ndeysaan waaye mbokk yi combat bii grand ak ki nga xamante ni ndeysaan Franc Mbeur ak Réparé mbokk yi septième combat de la soirée arbitre baa ngi leen wax li làmb bañ ak li làmb nangu Malick Ngom moo arbitre mbokk yi mi ngi leen di wax fi ñu war a dóor ak fu warta dóor moom Malick Ngom journée Iboulaye production mu nekk combat boo xamante ni ñaari xale yi kii parcelle la waree kii géejawaay la waree kii marle moo koy indi kii turandoom Franc moom moo koy indi ndeysaan arbitre baa ngi ay jugem ndeysaan laaj na Franc Mbeur laaj ñu réparé arbitre sifflé na sixième combat de la soirée ci diggante ki nga xamante ni moom mooy Franc Mbeur bokki a ki nga xamante ni moom mooy réparé ndeysaan ñaari xale yi ñu ngi lewtoo réparé na Franc Mbeur dóor na réparé Franc ngi lewtoo ñoom ñaar oh ah fi nga dóor baaxul ah Franc Mbeur arbitre bi sifflé waat na Mansour ah jël na ko réparé jël na ko daal di oh réparé Franc Mbeur réparé xeex bi waaw waaw réparé ñaari xale yi ndeysaan dañoo tolloo bokku génération réparé di rakk ci marle moom ak Franc Mbeur la ñi xeex réparé Franc Mbeur ba mu daan do am ñi ngi raak raak raak raak réparé Franc Mbeur waaw réparé Franc Mbeur mi ngi génn moom moom Franc Mbeur réparé Franc Mbeur répa oh, mi ngi door mi ngi door fayu door fayu door fayu waaw waaw ko doon ba waaw waaw la ilaha illallah daan na ko da koo duma da koo daan da koo duma da koo daan da koo duma da koo daan oh réparé waay oh duma na ko daan na ko ndeysaan ndeysaan oh ndeysaan Caana Konda la jóge dafa jóge